FM 103.5. UCAB FM, ak Mouhamadou ñaari waxtu ci bëccëg fegg na fanweeri minute ca Mbàkke Xewar ak Mbusoobe di ay gox yu ne ca Mbàkke xibaaru digg bëccëg yi. bopp xibaar yi ci gën a fees ñu fas seen leen ko faram fàcceel Serigne Cheikh Mbacke moom Serigne Ismaïla Mbacke di xalifa Mamor Diarra Mbacke doon na amalu ko ngan foofee ca njabootu ko Serigne Abdou Awa Niang googee ca affaire dinañu ci ñëw ci xibaar yi mbokk yi lii itam ñu wax ci màggalu ko Daaru Karim gi ñu doon amal tëje nañ ko ab cérémonie officielle gu ka fa teewaloon gondu mang bi di ministre Gallo dina ñu ci ñëw ci xibaar yi danañu dem foofee ca Touba décoré ñenn ci seen i ndaw ginnaaw ba ñu leen ràññee ci seenub liggéey dinañu ci euh, dem foofee ànd ceeg ka jiite di euh, soxna Ndeye Mbaye Diatra ci biir xibaar yi ba tey itam dinañu dem foofee ca njaareem wax ci lu jëm ci wàllu politique euh, ministre Dame Diop dajale woon nu mu ko fas yéene doxale àndoon ceeg kii tamit Karim Fofana di jëwriñ ji ñu dénk wàllu commerce bi dinañ ci ñëw ci xibaar yi mbokk yi lii dinañu tekk dinañu ci tekk ganuk bis bi tey ji Alaaji Cerno Wàdd lay doon di chef de village su Ndàngal ma moo ñu fas yéene xamleeg département bu Bambey dinañu ci ñëw ci xibaar yi mbokk yi lii lañ leen fi fas yéene faram-fàccee ci ay xibaar neskiis ñu ñëw ak yéen ci ni mu gën a yaatoo. xibaar yi fii si UCAB FM ak Mouhamadou Moustapha Ndiaye. Cheikh Bey mooy ki ne ci machine bi Mouhamadou Moustapha Ndiaye mooy ki ne ci micro bi mbokk yi dal leen ak jàmm ci rajo UCAB rajo université Cheikh Ahmadou Bamba kàddu gi di bawoo file ci Touba Ndam ngeen ñuy teewlu ci band FM bi ci 103.5 fépp foole na ci àdduna it ngeen mën ñoo teewlu boo leen defee ñetti www.sunfm.com xibaaru digg bëccëg gi. groupe de communication. université Cheikh Ahmadou Bamba. mbokk yi ni ñu leen ko waxe woon ci bopp xibaar yi dañu koy door rek euh, ngan gu euh, ki ko doon amal mooy euh, Serigne Cheikh Mbacke moom Serigne Ismaïla Mbacke. di xalifab Maam Mor Jaara Mbàkke borom saam ma ngi ko doon amale nag foofee ca afe ci njabootu ko sëriñ Abdou Awa Ñang loolu yi nag waral waa dëkk ba ak itam ñenn ci njabootuk sëriñ abdu Awa Ñang yëkkati ci ay kàddu rafet lu ko lool kenn ca ñoom di Alaaji euh, Moodu Bode Ñang ay kàddoom ñaandandoo teewlu ko ko moo moo nu gën a jege ak ci dégg su ndigal xanaa kon saxul sedd na kooka moo moo nu gën a jege ci wàllu saa ndax moom moom la sama bay laa wax sëñ moo rek laa wax ku baax ki moom daawu ci wax waaye ku wax sëñ moo jaare nag wax nga sëñ Tuubaa ndax ñoo ñoo bokk ndey ak bay mu indi bokk ci sëñ moo jaare mi nga xam ne nit la di wax ak nit ñi sëñ moo jaare bokkoon tund yëpp def benn dëkk affaire yëpp ak ak tund wi def benn dëkk tool yi mag ñi amuñ fuñ bay ñu ne ñuy tuxu golf kenn moomu bëgg a dem Afrique ñiñ dëkkatoon bañ ñu tuxu ne du ngeen dem kon dañuy wéet suñ moo jaare jox nit fetal ne ko demal ndili si sama bokki Afrique bi buñ bëggee tuxu ku jàpp ci néeg na bal sa tàkk sama bokk lañ tudd moo leen seetaan fii moom mooy lépp fii lépp juddoo lu baax loo gis fii la juddoo boo gisee suñ sal daa wax ne yéenay démb yéenay tey lu baax lañ tàmbali woon ku jariñu foofu nga jariñoo damay tënk wax ku dégg wax da ko xam waaye lépp fii la déparé ñu doon tey lu jébbul di déglu ndigal nga am gi nag ñu am ci mbégte moo xam ne dafa mel ni suñ moor jaare moo ñëw aar ndax am na suñ tubaab wax ci at bi sama sët yi ak sëti yonent bi ñoo yem kon nag sëti yonent bi bu ñëw aafe am nañ mbégte am nañ yaakaar ñu ngi sant di gërëm gërëm mbooloo mi di santaane ñu sax ci ndigal di ko jëfee lu suñ buy teree moom fu ñu ko xam sax am nañ mbégte mu rëy ndax ki nga xam ne moo fi nekk tey toog toogaay suñ moor nga xam ne dafay doon gan bu wëlbati ko ñëw ne dama leen di nuyu si loolu ñun am nañ ci mbégte lool loolu am nañ ci kontaan bi li def nag euh, euh, lislaam nangu na ko ak bokk na ko ndax gan bu ñëwee yaa war a nuyu si comme moom xam na loolu ba ñëw di nuyu si ñun am nañ ci mbégte ñu ngi ko ci sant di ko ndax lii kat ñu ngi koy door a am ki fi nekkal ci sëñ Mor Diarra jóg di ñu si loolu ci ci moom lañ ci lañ ko jëkkaan kon ñoo ngi ci am ak sant ñoo ngi ci am ngërëm ñoo ngi koy ñaanal itam di ñaanalaat yi mboolem koo xam ne teew nga fi wala nga bëggoon fee teew te yàlla ndogal ko wala nga dégg kàddu bi ak foo mën a ne yàlla yàlla la xéewal defal lu wér defal lu wut defal la njëggal moom mi itam bii nga xam ne toog na ko toogal ko sañ Mor Diarra yàlla mu ngi ci am benn xel képp koo xam ne jiitoo na ko te topp lam tàmbali woon ci lu baax lu ne yàlla ko yàlla may mu eggale ko ba def yëfu boppam te ñu ànd koog loolu. moom moom moom lañ defar lool moo moo tax moo tax mu yëkkati kàddu yi nga xam ne yëkkati na yi nga xam ne ñaan naa ko ci loolu wax. yéen ñi lañ ci jiite yéen yéen yéen waa ndax yéen fi seen kàddu mën a àgg suñu kàddu mënu fa àgg kon yéen su ngeen su fekkee yéen ngeen ko te maa ngi boo xam ne am na te jëm ci yoonu mbori écarté na fa ñëw kon yen ngeen ci yéen kon yéen ñu ngi leen di sant sëriñ Cheikh Mbacke moom sëriñ Ismaïla Mbacke xalifa Mamor Diar Mbacke borom saam kon moo doon gën ji ah, njabootu ko sëriñ Abdou Awa Niang foofee ca Touba Afe ka ngeen njëkkoon a dégg nag mooy Abdou mooy Abdou mooy ah, Modou Modou Bodde Niang kii ngeen di dégg nag ah, sànq muy soog a daaneel mooy Alaaji Njaga Niang moom Alaaji Mor Say Niang moom ngeen doon teelu noonu yi ci wàllu diine la ñu nekkoon ba tey ci la ñuy des ndax màggalu Daaru Karim démb nag lañ ko tëjee ak cérémonie officielle bu ñu ngi ko amaloon ci teewaayu mbooloo mu takkoo takku rawatina nag ah, kilifa diine yi ka fa teewaloon nag ah, son excellence le président de la république ah, du gouvernement bu Sénégal nag di ministre Gallo Ba di maire bu Mbàkke moom sax yëkkati na fa ay kàddu ñu àndandoo teewlu ko. président de la république Macky Sall moo ñu fi yabal ci bisu màgg bi bisu ko màgg sëñ Massam Mbàkke ñu ànd ak délégation bu am solo ñu tudd leen sànq waaye ñu ràññee ci bu baax a baax seen soppe seen doom seen lépp sëñ Cheikh Abdou Mbacke Bali mi ministre conseiller ak ministre conseiller Isma Dioum ak gouverneur région de Diourbel Ibrahima Fall ak adjoint préfet bu Mbacke ak sous préfet Ndam ak chef de service yi ne ci département bi yëpp waaye tamit ñu ànd ak ak ay responsable yi nga xamante ne ñoo bokk ci li ñuy yëngu responsable politique yëpp ak bépp boor bu ñu féete sëñ bi président moo ñu yebal ni mu koy defee at mu ne ci bis bi ngeen am di bis bu mag di bis bu mag di bisub sëñ Massamba Mbacké moo xoon bu ñëwee na yëkkati ay kàddu ci turam kàddu yi nag dañ koy tënk ci ñaari fan rekk kàddu yu ziyaar la ak cant waaye tamit kàddu sàkku bi ci njëkk mooy kàddu ziyaar ginnaaw bi mu feddalee kóllëre gi bi ngeen bi mu séq ak njabootu sëñ Bassam Mbacké yépp séq ko it ak sëñ Mamor Mbacké séq ko ak yow mi toog di leen feddali kóllëre gi di leen feddali taalibe gi di wax ne bis bi bisama ndax at mu ne dina fi yable avant sax muy nekk président de la république bis bi dafa woo defoon bisam ndax xam na bu baax a baax dayob sëñ Massamba ci yoon wi ndax sëñ Massamba lépp lu am sëñ Touba la ko jële ndax képp ku maasal jamono rek ñuy tëkk ñu koy tëkkale ci mbaax walla ci xam-xam wala ci ci taxawaay sëñ Massam moo la ko ëppale woon loolu nag sëñ Tuubaa moo ko seede woon waaye daa jël léppam delloo ko sëñ bi nekk ab taalibe rek di ko liggéeyal nekk ci ay yitteem nekk ci ay bëgg-bëggam di di fàgg bu baax a baax li nga xamante moom la sëñ bi nekkee woon kon nag li sëñ Muntaxa wax ci moom doy na sëkk ndax nee na taalibe bu nekk war ngaa delloo njëkkal sëñ ma sàmm Mbàkke ndax taxawaay bi noonu taxawu sëñ bi ak liggéey bi nga liggéey sëñ bi kon nag bésu nii waxuma dayob borom bis bi waxuma dayob keppaar gi xamante ne fii lañuy toog waaye liñ fi jàng ci xasida ak alxuraan xajul ci benn soxla loolu nag moo tax président de la République Macky seen doom seen xarit seen taalibe yebal ñu fi nañu kat bu ngeen demee na ngeen yóbbu sama ziyaar yóbbu sama sama cant ba pare it sàkku ñaan ci réew mi dal gi yokk fi mooy li ko ministre Madické waxee sànq rek nañu ñaan yàlla ci barke bés bi ci barke sëñ Massamba ci barke sëñ Touba réew mi gën a ànd ak dal jàmm ji gën a yaatu ba naal yi nga xamante ne am na ko ci réew mi am ko ci askan wi yàppal jàll jàppale ko ba mu yeggale lépp ministre euh, galo Ba moom ngeen doon euh, teewlu noonu moo doon euh, yëkkati ay kàddu kon ci noonu ñu leen ko waxee ci cérémonie officielle màggaluk Daaru Karim muy màggal gu ñu doon fàttaliku ma Massamba Mbacke noonu ñu leen ko waxee nag njabootuk ma Massamba Mbacke nga fa woon ka doon waxtu seen kàddu nag di Serigne Cheikh Mbacke moom Serigne Mouhamadan ay kàddoom ñaan doo teewlu ko. sant la monsieur le ministre yow ak sa délégation bu rafet bi nga fi àndal ak Cheikh xam ne moom nga àndal te muy nit koo xam ne doomi dëkk bi la di kilifa te mën a joxe cër bu baax a baax te gëm gëm gëm li mu doon tabaarakallaahu waaye gëm na nag kuy kilifaam mu jox la sa cër ba nga mat sëkk loolu mooy doxin bu baax woowu doxin yal na ko yàlla saxal ci mbooloo mi yal na ko yàlla saxal ci dëkk bi ñu ngi leen di gërëm bu baax ci loolu di sant itam nag taalibe yi nga xam ne sëñ Abdou Razak wax na ko yëpp parce que li ci ëpp solo loolu duma ci delluwaat ndax dëkk bii dañ fi am ay liggéey yu fi am dëkk bu bu bees la boo xam ne dañ koy dañ koy gën a taxaw gën koo dëral ñu war fee def jumaa ji ngeen xam ne dana dem dana dem ay 3 milliards mën na koo liggéey kon nag loolu liggéey la boo xam ne kenn ku ne da ciy def loxoom gis nañu taalibe yi nga xam ne def nañ ci seen loxo mu ñu bari ñi joxe nañ ay téeméeri barigo ciment ñi joxe nañ fer ñi joxe nañ ciment joxe nañ lu nekk joxe nañ ko ba mu wóor nu ne luñ ci dolli ku yeex doo ci barkeelu kooku loolu laa leen bëgg a xamal ñu ngi sant kilifa yi di sant it borom réew mi bay ko wax dëgg yàlla ah, dugal na loxoom ci bis bi ndax ndigal yi mu joxe moo ko joxeel boppam ba tax na lépp mel na ni mbara yal na yàlla fay ko ci darajey lislaam ñoo ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. sëriñ moom sëriñ Mouhamadane moo doon yëkkati kàddu yooyu ci noonu ñu leen ko waxee cérémonie officielle bi ñu doon amal foofee ca Daaru Karim ñu wax euh, ci leneen wax euh, ci lu jëm euh, ci wàllu développement ak jaay ak jënd foofee nag ca Touba HLM kuréel gii di Kër Ya Sayda ndimbal jaboot ci njiital kuréel yi soxna nday Mbay ña nga doon décoré kat ñenn ci seen ñooñ ginnaaw ba ñu leen ràññalee ci seenub liggéey ndaje moom mi nag ñi ngi ko doon amale foofee ca Touba HLM soxna Ndey Mbay ma jiite googee kuréel ay kàddoom ñaan doon teewlu ko. ñoo nekk ci 8 mars muy weer bi nga xam ne moom lañu ñu ni woon kon nañ ko amal tey doon ci sargal nag ñaan ñoo xam dañoo bokk kër di ay nawle di wujjee nekkee ci accès bi nekkin bu rafet rafet macha allah. ñu ngi ci liggéey bu ama am solo defe naa barki démb ñoo nekkoon daaw Tanzil nga gis mobilisation bu am solo bi nga xam ni fem développement yi nekk Touba def nañ ko. Touba nag ku ko wax rek defe naa wax ni jigéen ñi fi nekk jigéen liggéeykat lañu ay jàmbaar lañu lool. koñ boo dem rek danga naan lii moom fii rek la am ci seenum njàmbaar ci nangoo liggéey ci nangoo ànd doon benn même da gis banque yi sax dañ naan man su may lebal jigéen ñi laay lebal ndax ñoom ñoo gën a doon benn ñoo gën a booloo ñu fiy liggéey nag liggéey bu ama am solo nga xam ni dañuy daje chaque semaine kenn ku nekk di denc li nga am suñ ko dencee ba màggal Tuubaa ñu koy jël mbooloo mi kenn ku nekk li nga ci am nga jël ko waaye comme niñ koy defee chaque fin du mois fu ne nii kenn ku ne xam na ñu ngi waajal weeru koor soxna Jaxeer Kabe dem na démb man se jënd fa presque valeur quatre cent mille wala valeur trois cent cinquante mille pour ñu war ko séddale ci mbooloo mi su ko defee su boobaa dañuy oyofalal suñu borom kër gi euh, dépense bi nga xam ne waroon nañ koo def ci kër gi lu bare bëri dina wàññeeku su boobaa comme ni ko Oustaz Xabaan doon waxee léegi di wax ni léegi yi am na njëriñ ndax moom mu ngi ci gis boppam waaye jàpp ni ñoo xam ne góor ñu bari buñ fi teewoon daañu wax ne ñoom ñu ngi ciy gis seen bopp ndax li nga xam ne moom la ñuy jël muy lu mel ni diwlin beeg ceeb beeg yëpp suñ ko yóbboo day économiser li nga xam ne mooy dépense su kër gi ndax ñun du leen ko jaay prix détail waaye daanaka prix en gros lañ leen koy jaayee su ko bitig bi day di jaayee 700 ñun ñu ngi leen koy jaayee 650 wala 600 bu dee bidon diwlin bi su ko marché bi di jaayee wala borom bitig bi ci koñ bi di ko jaayee 6000 wala 6500 ñun ñu ngi leen koy jaayee 5500 te yàpp naa loolu mooy tax koñ mën a am développement nga xam ne li ñuy soxla yëpp ñun suñu biir ci suñu biir lañ koy jënd su ko kees gi jaayul tamit membre bu nekk am na façon njaay moo xam ne yaa ngi koy jaay soo ñëwee sa morom dañuy def solidarité jënd ko am na koo xam ni daal lay jaay nga xam ne man daal yi may sol yëpp moom ma koy jaay Adama Souare daal yi muy sol yëpp moo koy jaay composite ma yor ak yeneen. moom mi moo koy jaay su ma ko soxlaa du dem marché waaye ci moom laa koy jëndee. soxna Ndeye Mbaye Diatara moo jiite kuréel goog yi di Kër yaa Sayda ndimbal jaboot dañuy ñëwaat foofee ba tey la des ndax kenn ca ñoom ñu bokk ak moom liggéey ba muy soxna Adama Suwaare moom itam yëkkati ci ay kàddu leeral njëriñ lu liggéey boobee ñuy liggéey amal na leen ko soxna Adama ay kàddu ko. ni ma ko gisee mooy social daal moo ko lal. te liñ ko yëkkati woon muy liggéeyal Serigne Touba ci la nekk ba tey ndax am murit de bu dencee lu jëm màggal ci bisub sëñ bi rek la koy def te sëñ li mu woote ci bisam bi moom dane ku koy fonk ak ku ko fonk koy fonk du ñàkk gis lu muy tiimi ko ko dul fonk ba faaw te solo slogan boobu moom lañ yëkkatee lii parce que ay jigéen a ngi daje di def naan nañ daje bu tabaskee ñu séddoo jënd suñuy yére xoot ci sol fii Touba nag lu ñu dajale lu ne ñun sëñ tax ñu di ko dajale màggal gi moo tax ñu di ko dajale xëñ na nag ki tax ñu di ko dajale ànd ko moom moo ñu dooleel tey bu koor jotee ma ñëw fii jël sama suukar jël sama kafe jël sama diwlin jël jël sama nécessaire yëpp yi ma soxla def si sama waañ tey su ma xëyee sama poset oyof kenn du ma xamal kon loolu social la moom ci sociale lay dox te social moom moom jigéen moom ku koy jàppale ci loolu nga ko mën a jàppalee ndax tey soo ma joxee cent franc wala nga jox ma mille ma dem ci bi tey su ma ko jaayee day jeex mais su ma jëlee sama nécessité yëpp def ci sama waañ stocké ko fa man su ma tëddee sama xel day daal parce que dama naa man de lu ma mën a am rek dinaa mën a defal sama njaboot kon social ñëwaat na ci biir. kon soxna nday sociale lay def. man accès bi membre fondateur laa ci parce que bi muy commencé daf ñoo mi ngi commencé si benn banque bu ñu jëloon prêt ñu ciy liggéey biñ ciy liggéey après jéey ñëw xoo seet si ko. bi ko jee ñëwee seet si ko ne ko dama laa bëgg a sampal cellule mu ne ko man de ànd na ma ak jigéen ñu jàmbaar ndax ñi ngi doon dem di jël si banque di liggéey kon bu ñu amee suñu yëfi bopp yi daf ñuy arrangé mu daan ñuy interpeller boobu ma juumul matuñu sax quinze personnes bu njëkk ba kon da lay li lay leer ne la affaire bi maanaam social gi ci nekk moo tax ku ne di ci gis boppam moo tax tey boo ñëwee weesu jóge nañ ci quinze ñu ngi ci effectif ay 50 wala ay 60 te loolu lan moo ko waral liggéey soxna Ndey moom moo ko waral. socialam moo ko waral maanaam mën a uuf nit ñi moo ko waral parce que ay jigéen li ma la wax rek jiite leen metti na te boo leen jiitee dafa am idée boo leen di jiitee te jaboot kat soo ko nee ceeb a ngi nii diwlin a ngi nii suukar a ngi nii lépp a ngi nii moom su xëyee bu yoree 1000 francs si posetam sax day mën a dem si marché bi si koñ bi jënd li muy jënd ñëw kon kooku yow dèjà da nga koy jàppale. dañuy euh, daal di dem euh, foofee ca njaareem wax ci wàllu politique ndax euh, ki fi nekkoon jëwrin di ministre daam Diop kat dajale na ay ñooñam foofe ca njaareem xamle na nag nag ki la di président Macky Sall moo fa yéene nekk seen candidat ci élection yi la di ñëw am na ci yeneen yu leeral yu yëkkati na ko fa jëmale ko ci ay militant na Dame Diop ay kàddoom ñaan na doo teewlu ko. Abdou Karim Fofana jël ko tëj jataay bi 2008 bi ñuy taxaw alliance pour la république fii lañ ko dore woon président Macky Sall ñëw fii ci bayal bi ànd ko ak ñun ñuy jóg di daanu bat yàlla def li mu def tey tey 19 mars 2023 11 ans bi nga xam ni moom le président de la république Macky Sall ñëwoon ci bopp réew bu ñu dajewaat fii tey hasard amul et je la même détermination des militants que vous êtes ma leen ci sant di leen ci gërëm di ci sant ñi nga xam ne ñoo sosoon mbir mi ak ñi nga xam ne ñoo ñu ci fekk sii tey mais loolu yëpp liggéeyu président Macky Sall les anciens sont là je suis heureux d'apercevoir mon ami Thierno Diop je suis heureux d'apercevoir mon ami Maman Oumouba je suis heureux d'apercevoir et les autres et les autres qui ont fondé ce parti mais j'ai une pensée pieuse pour ñi nga xam ne ñoo ñu jiitu ju te ñu àndal ak ñoom ci xeex bi su ma tuddee Passar doy na. parce que Mamadou Sarr këram lañ doon defee suñu première réunion APR ba ba lii am tey moom sama xarit Dame Sylla sama doomu ndey sëriñ Mbaye sama rakk Tidiane Mbaye ak ñu mel ne ñoo ñu nga xam ne dañu jiitu ji yàlla leen yàlla xare àjjana seen seen fa ñu tëdd da seen xol dafa dana sedd parce que lii lañ doon xeex kon boog maa ngi leen di sant ci seen détermination boobu cant gi nag dama koy jaarale ci kilifa yii taxaw ci sama gannaaw monsieur le coordonnateur du meeting monsieur le maire jërëjëf monsieur les élus les, les les députés aux conseillers membres du conseil économique social jërëjëf. monsieur le maire monsieur les directeurs jër jërë ngeen jëf maa ngi leen di sant parce que lii ngeen def defuma ci dara seen liggéey la bu ngeen defee lii lu mel nii ajaratu kumba bi mu wax léegi ne namoon nañ lu mel nii parce que parti politique c'est de la mobilisation et vous avez démontré que tey ngeen gën a takku nekk ci gannaaw président Macky Sall kenn mënu leen fay yéen militants yi li ci des rek mooy gannaaw bu ma ko santee bu baax ma sant kilifa yi ñëw yëpp wuy suñu jiital ci sama rak monsieur le ministre ci teewaay bi ànd ci ak ministre conseiller Cheikh Abdou Bali Mbacké ànd ci ak le ministre directeur de cabinet adjoint du président de la République Demba Diouf ànd ci ak tous les élus yi nga xam ne ñoo dëkk fii ku ma lim rek mu baax ma ma ci lim les partis alliés qui sont ma jàllale ko ci alliance pour la alliance des forces du ki fi wax léegi nuyu le maire de la ville à travers son représentant monsieur le maire Thiékoura Sène di nuyu kilifa yi toog fi kilifa diine kilifa aada ñoom ñëpp ñëw nañ fi nuyu samay rak directeur général Sayer Diop directeur général Moustapha Gaye yónnee fii délégation nuyu kilifa yëpp nuyu sama jigéen Fatou Diané maa ngi sant cadre yi docteur Ndeye Maguette wax na ko léegi di sant jeunes yi waaye nag yàqu leen ko parce que tey ay la yëwét rawatina ci suñu département bi ñoo xam ni mosuñu ko am ci kenn ci benn président loolu moo war a seen mobilisation bi depuis dix jours nelawu leen tàyyiwu leen leen ngeen di jóg di daanu di góorgóorlu ba def li ngeen def ni tey maa leen ci sant bu baax sama xol sedd na mais monsieur le ministre le maire Moussa Ndour wax na ko wax na ko léegi que fii ñu jëm nii ak président ci Sall du 2024 c' est jusqu' en 2035 et war a dem ko parce que wetti gis bokku ci président la république moo liggéey réew mi doot la wuñ dara président de la république liggéey réew mi donc ñun nag suñu engagement aux côtés du président de la république c' est engagement de si c' est un engagement boo xam ne daf ko daté depuis des années ñu gis ko gis dëgg dëgg bëgg-bëggam ci réew mi gis projet programme am ànd ci ak moom ngeen nangul ñu ko nag tamit ànd ci ak moom kon boog maa ngi leen di sant di leen gërëm di wax fii ñu jëm deux mille vingt quatre seen mobilisation bi bu wax opposition dinañ xam ne amuñu fi dara fii ci Touba nañ ko biral nañ ko biral nañu continuer ñun waa APR ñun waa coalition euh, Benno Bokk Yaakaar nañ ci biral dem ci nit ñi wax ak ñoom parce que tey bari nañu opposition boo xam ni opposition boo xam ni manipuler nit ñi lañuy wax wax lu dëgg sos waaye foofu du coow yi parce que xam nañ ne président la Macky Sall bu sëggee ak ñoom balaa 6 heures mu yóbbu leen kookoy euh, ministre euh, daam Diop moo fi nekkoon jëwrin ay euh, jamono fekk baax foofee ca Njaareem ca ndaje moomee Dame Diop doon amal foofee ca Diourbel ca la ñuy des ndax am na kenn ci responsable politique yi waaye tamit di ministre bi ñu dénk wàllu commerce yoren di porte parole gouvernement bi tamit yëkkati na fa ay kàddu moom Abdou Karim Fofana di xam ne ne nag yëngu-yëngu politique yi fi ñu toll jamono ji dina ci jël ay matukaay leneen lu tamit xam ne tamit jamono ji di xam ne ne am réew mi daal daal rek lañ ci war a nemmeeku Abdou Karim Fofana ay kàddoom ñaan doo teewlu ko waaw sama teewaay li ko waral waraloon mooy dikk fii ci Diourbel ci ndigalu président de la république ñëw ànd ak euh, suñu xarit suñu mag daam Diop mi nga xam ne ku ko xam-xam ko président Macky Sall bu yàgg mu dajale woon mbokki Diourbel ñi nga xamante ne nag wax dëgg yàlla Sénégal république du Sénégal ak nekkinam da ko ñor da leen ñor mooy république boo xam ne dafa am taxawaay république boo xam ne kenn yi dafa dëgër république boo xam ne dafay xaj xajoo ku ne xajal fi ku ne ñu bokk ko euh, ndaxte nag Sénégal dafa am ñoo xam ne léegi liñ ci xam mooy taal ak toj ak yàq ak saaga ak wax lu bon. ay eh, boo xëyee euh, ne sénégalais yi kenn du liggéeyi bopp koñ bu ne danaa fa taal wala da buy ay bi du la du la du la raw ni ko kilifa yi di waxee moo tax sénégalais yi taxaw nañ waaye état du Sénégal taxaw na. képp koo xamante ne mooy nga yoon ci li mu wax ci ordre public ak euh, dal bi war a am ci réew mi ak liberté bi nit ñi am di dem ak a dikk ñun danañ ko jaamaarloo yow danañ jëflante ak yow ba mu mat sëkk ndaxte nag bu constitution ne nit ñi am nañ sañ-sañu marche constitution tamit boobu moo wax ne nit ñi am nañ sañ-sañu am dal am nañ sañ-sañu am féex am nañ sañ-sañu dem am nañ sañ-sañu dikk am nañ sañ-sañu def lépp loo xamante ne euh, seen jàmm la am ku bëggul jàmm nag état du Sénégal ak état yëpp am nañ li ñuy wax le monopole de la violence légitime danañ ko jàmmarloog yow ngir nit ñi am jàmm ndaxte boo gisee ñun ñëpp ñu jël suñu kàddu ak suñu doole dénk ko police ak gendarmerie loolu moo tax ndax dañuy bañ ku rek nga jël sa bakkanu bopp ak sa teeyu bakkan ne dama koy teg ñeneen ñi su ma xëyee bu ma waree dem wuyu ji gendarmerie ma ne du ma wuyu ji gendarmerie damay bloqué tali bi kenn du jàll bu ko defee ñëpp jox seen kàddu police ak gendarmerie ñu faj loolu. leneen li nag mooy société civile bi damay gis bés bu ne bu coow amee rek ñuy dal ci état du Sénégal di dal ci ñi ne ci waa nguur gi ni ma ko waxee nguur ku ci ne euh, ëppoo euh, loi yi ak règlement yi ëppoo yoon waaye tamit yéesoo yoon yoon nit ñëpp lañ ko fi tegal ki ne ci nguur gi ak ki ne feneen. mënuñu laa saaga tuumaal la wax ci yow lu ñaaw lu ne euh, société civile ne pat ba pare keneen buñ bu defee naka su dul noonu buñ ko dooree dóoree lacrymogène société civile ne dañ ko jox passeport mu dem bitim réew li may fàttali mooy mbirum évacuation sanitaire dañ ko wax ci réew mi bu fekkee da nga am lu la dal te fekkoon nga nekkoon sous contrôle judiciaire maanaam yoon teg la loxo waaye yóbbuwu la prison dala bàyyi sa kër boo waree gën réew mi da ngay dem yóbbu say kayit ñu xool ko buñ ko xoolee médecin xool ndax la nga doon moo la dal mënoo nag dem ci médecin bi la neex bi nga xam ne sa parti la bokk bi nga xam ne clinique am sax nee na moom du fa dal ku bokkul ci parti bi mu defal la këyit nga ñëw ne waa damay laaj évacuation sanitaire loolu mënul ne ci Sénégal donc société civile ñu ngi leen di ñaan nañu yem fi ñu war a yem li ñu war a yem mooy taxawal sénégalais yépp wax fu dëgg ñu wax ko waaye bañ a ne ci par parloo ndaxte li ñu gis ci société civile bi ñaaw na dafa niru par parloo leneen li nag mooy li nga xamante ne rek président Macky Sall teg na ko muy liggéey ñun ñu continuer di ko def di ko taxawal di ko def ni mu waree am ci taxawaay bu mat sëkk nag waa Diourbel taxaw ci am fulla région boo dem ñu ngi mobiliser wu ngir taxaw ngir réew mi ngir président Macky liggéey bi mu def mu continuer ko waaye ñu bañ a ne ci sox ko sox ko képp koo xamante ne yàq la fi dugal wala tooñ moo la fi dugal danañ jàmmarloog yow ba wan la li nga xamante ne moom la yoon Abdou Karim Fofana di jëwriñ ji ñu dénk wàllu commerce ci moom sax la ñuy des ndax àdduna jëmale ci marché bu ndumbe jot boobee nekk ca njaareem xam na ne jamono ji nag marché bi pare na waaye nag kenn du leen sorxo sorxo faw rek ñu waxtaan ba ku ci ne rek def la la war ca marché ba ñu soog koo mën a dalloo Abdou Karim Fofana ñu àndoo waat teelu ko. waaw euh, waa waa waa Ndumbe Diop li ñu leen waxoon lu leer la dañ leen waxoon ne marché bi buñ ko defaree ba pare dañuy toog waxtaan ñu marché bi nii lañ koy doxalee. waaye état du jël alalam def ko fenn ba pare bu pare ñuy bàyyi ñu koy doxalee nañ ko daan doxalee buñ ko doxalee nañ ko daan doxalee mu lakkaat mu yàquwaat. gis ngeen marché bi ñu ngi koy defar pareegul sax man ñëwaat naa fi ci beneen lakk gis ngeen li tamit ci marché euh, Ocass donc ñun duñ ci amuñu ci maslaa marché bi pare na waaye nag buñ buggee ñu ubbi ko dañuy toog ñu waxtaan ñu teg ay règle ñu teg comité de gestion ni ma ko yàggee wax marché day am ku koy ubbi ak ku am waxtu ubbi am waxtu tëj waaye defaral leen ñu marché bi ubbi leen ko tey tey tey loolu mënta ne loolu mënta ne kenn du ñu sorko sorko kenn du ñu bumax bu waxtu wi jotee ñu toog waxtaanee ko ba d'accord ci niñ koy gérer ñu gérer ko noonu waaw lu leen ci neex lu ci dal seen xel ñu wax ko lu ci dalul seen xel ñu wax ko. Abdou Karim Fofana di jëwriñ ji ñu dénk wàllu commerce mbokk yéen a ngi woy di déglu xibaar yi ci rajo UCAB rajo université Cheikh Ahmadou Bamba ngeen ñuy teewlu ci band FM bi ci 103.5 fépp it foo leen ne ci àdduna ngeen mën ñoo teewlu boo leen defee ñetti w point sunu fm point com niñ koy faral di defee talaata bu jot tey ji la nag geneen gan la ñuy dem ak itam gëstu ci beneen bi beneen dëkk ngir xam ko tey nag ña ngay dem foofee ca village bu Ndangal ma di ab dëkk bu nekk ca département bu Bambey arrondissement bu Ngoy dalal gan gi di Alaaji Thierno Wade mooy chef de village ba ñu àndandoo teewlu ko. talaata bu jot ak Moustapha Ndiaye. Alaaji Thierno Wade ñu ngi lay nuyu. waa kay ñoo ngi leen di fay. Alaaji Thierno Wade yaa jiite euh, regroupement des chefs de village yi nekk ci euh, département bu euh, Bambey waaye tamit nekk chef de village yu dëkk bi la di Ndangalma ndax man nga ñëw ñëwaatal ci dëkk bi la di Ndangalma fu mu ne. waaw Ndangalma de moom boo fekkee da ngaa jógee Touba di ñëw boo génnee Bambey séeréer rek ak dëkk bi ñuy wax si yow Ndangalma nga ciy teg. bu fekkee tamit da ngaa jógee Dakar di ñëw boo rëccee xombal ba génn Kaba rek aussi di Ndangalma boo duggee rek Ndangalma nga ciy teg. waaw mu ngi nekk ci point de vraiment laaj nga laaj bu am solo parce que Ndangam dafa nekk dëkk boo xam ne bii dafa dafa yàgg bon parce que booy xool ay siècle mat na ko ay mille huit cent ci la Ndangam ma fondé woon Ndangam nag fi mu jógee mooy euh, ki nga xam ne kii moom moo ko sañcoon ñu ko doon wax Fejjem Njaabi moom na mi ngi jóge woon benn dëkk bu tudd Fuuta ci benn village bu ñuy wax aw gaar yi foofu la jóge woon nag ñëw bi mu ñëwee nag ba dëkk fii ba mu ñëwee fii nag léegi nekka na ak benn benn xarit séréeram bu sant bu sant seen euh, bu mu ñëwee nag ba nekk foofu nag léegi nag bi nga xamante nag bii nag moom dem gis na teeñ ba mu yóbbu ko fa teeñ teeñ may ko jox ko dog yu mu ko doog a daggal bi ñu a ñëw nag ci genn garab gu ñuy wax garab gu tudd dàng foofu la foofu la sippi woon parce que bi mu ñëw mi ngi yoonoon weer na weer na nag ak génn seet xam nga ñoom bu ñu daan dem dañuy def euh, listixaar bu fa fanaane nag bu fa nag yi euh, sabee nañ fi rek village bi sax mu xam ne kon fii ab ab la yàlla dogal nag mu yenn ku foofa ba mu demee nag ba yàlla dogal nag buur bi doon woote am na benn ngolis gu mu daan wootee bi mu cee woote nag mu mu yëgee a buur li da am naa tëgg boo xam ne bi xam na xarit boo xam a defar nag na ko ba nga xamee nag léegi buur ci yow sa dëkk bi yow yow fi nga dëkk yow noo ko tuddee moom tukulóor la woon nag déggul olof bu baax bi nga xam a bi nga xamante bi euh, tubaab bi mi ngi mi ngi créé raay bi xam nga raay bi sax moo jëkk tëdd avant ñuy samp Nicolas ñuy defar gaar yi nag bi nga xamee nag ñu ngi doon defar gaar yi nag léegi dëkk yi nga xamee nag ñoo laa ngak ñun kenn ku ci nekk da ngaa da ngaa yow pour ñu defal la foofu sab gaar ñu defal la fi gaar bi léegi nag am na ñooy dëkk yoo xam ne ñoom dañoo béy sur place pour war a ñu ko nag ñu ne ko waa mais kat yow nit kenn ku nekk ngi béy pour ñu xalaat kenn ku nekk pour ñu tabaxal la pour ñu tabax gaar bi sab dëkk mooy ne ah fekkee ne ñëw na bu ñu ko defee ba pare yéen ngeen jox ko xar moom mu nekk ndawalam mais nag bi bi bi gouverneur ñëwee nag ci jàkkote yooyu ba toll ba toll euh, fii gaal bi nekk tey mu daal ne fii mooy fan ñu ne ko fii de mooy ndàngal ma mu ne ci fu mu bokk ñu ne ko mi ngi bokk ci Lambaay mu ne ah Lambaay mooy premier pays de Bawol moo mu ne kon fii la gaar bi nekk ñu daa fi def gaar bi nag bind ci ndàngal ma ñu koy wooye alt ndàngal ma ndax mën nga ñëw ñëwaatal ci yenn ci ay village euh, yu làng ak euh, ndàngal ma wala boog yu ko jege waaw xam nga ndàngal ma ñu ngi composé euh, ay dëkk yu bari parce que am na benn dëkk bu ñu wax ngéej ngéej mu ngi ci entourage boobu la nekk jaar yi mi ngi fi ak njama ñooñu ak benn ak saw dëkk yooyu ñoo jege ndàngal ma xam naa rek kon ñu laaj la ñenn ci ay chef de village yu mas a jor yor ndàngal ma boo ñu ci mënee ñëwaatal rek. waaw ndàngal ma de xam nga moom ñun ay xelal la ñu am ci ñu ñu xam parce que boo dee xool man kii sama papa mooy ma ma kii sama papa maamam muy meesu ngóonde kooku nekkoon na à part que moom nekkoon na fara ndàngal ma Abdou Fatma Matar Fatma doomam nekk na fara ndàngal ma ah, Daoud Fatma nekk na fara ndàngal ma eh, Samba Sarr nekk na fara ndàngal ma eh, Moudou Wade doomam nekk na fara ndàngal ma Souley Wade nekk na faral Ndangalma ci moom laa ko jëlee. askan wi yeewoo ci Ndangalma ñu ci ëpp. waaw xam nga Ndangalma fi tey boo ko dee xool tey commune bi yëpp te ñu dëkk sama village. foofu moom mën naa la wax ne la moom li ci ëpp lépp moom ay wolof lañu. daanaka benn famille rek. ba tey askan wi seen liggéey ci lan la ko jëmale. bu fekkee nag ci commune bi la Ndangalma moom li ci ëpp nekk yi moom dañuy def commerce. dëkk bi daa am marché hebdomadaire wala luuma. sàngama moom du marché luuma parce que marché luuma bi ci commune bi Bambey Séeréer la nekk. moom la ñuy moom la ñuy utiliser par lundi. mais ndàngama moom marché moom chaque jour la moom. bon ko tàmbalee ci huit ba dem moom boo ñëwee doo am foo moom. nu ndox mi euh, demee ci ndàngal ma. waaw ndox mi nag moom wax dëgg yàlla moom benn dëkk bu jàmbat ndox daal. moom vraiment foo xam ne fii installation ba àggu fa moom amul. Euh, na ndox mi ni mu daan ni mu ko xam ne dafa xaw a sori nga xam ne tuyau dafa dem ba ci ba ci jamono yooyu dafa amoon calcaire mais nag bi équipe bi ñëwee moom li ci bëree bëri moom ñu ngi ci euh, euh, mais bi moom wax dëgg yàlla bon installé nañu ko bon boo dee xool trente huit villages yëpp am nañu électricité mais amoo yi daal nga xam ne moo def ay amul ci ay carte am na wala yooyu daal ñoom ñoom la fa ñoom la fa électricité bi àggagut mais bi moom benn décision boo xam yaakaar ne daal balaa deux deux mille vingt deux mille vingt quatre bi di àgg am nañu am nañu la ndox mi dañ sa dina fa dina fa yegg kii bi dina fa yegg allah. yéen a ngeeg ay barabu fajukaay. waaw ñu ngi benn barabu fajukaay nag muy benn poste de santé moo fi am. mais nag ñu ngi doon réclamé waat di doon wax parce que bi ma doon mujjee dégg ci discussion maire discussion bu maire bi moom am na beneen hôpital xalaat. bu war am site boo xam ne bu ñu amee war nañ ko faa mën a installé mais pour commencé bu ñu ko mais daal ñu ci xalaat yi am nañu hôpital bu bu moderne moom dispensaire Alaaji Thierno Wade rédaction bu rajo UCAB FM mi ngi lay sant. waaw mooy itam maa leen di gërëm bu baax a baax a baax di leen sant yéen ñi nga a baax di sant aussi ki nga xam ne tamit moo xam ne moo fi rajo bi mu Maam Mor Mbacke ñoo ngi ñaan moom leen yàlla guddal fanam te wéral ko parce que lii njëriñ la eh, loo xam ne tey jii yow yaa ko war a fekki pour nga wax dëgg bu la wooyee pour li la laaj nga di ko wax loolu sant yàlla rek la ñuy fàttali ne yaay chef de village su euh, dëkk bi la di Ndangalma waaye jiite kuréelu chef de village yi nekk ci euh, département bu Bambey Ndangalma nag nag euh, noonu yi nga ko waxee di ab dëkk bu nekk ci région de Diourbel nekk ci département bu euh, Bambey ñu ngi leen sant di la gërëm yéen ñu leen di sant di leen gërëm di leen jox dig daje incha allahu rabbi ci beneen talaata ci beneen village ak ci beneen chef de village jërë ngeen jëf. talaata bu jot ak Moustapha Ndiaye. di sant ko gërëm ko moom Alaaji Thierno Wade di chef de village su dëkk boobe di Ndangalma di ab dëkk bu nekk ci euh, département bu Bambey arrondissement bu Ngoy incha allahu rabbi ñu leen di jox euh, dig daje ci beneen talaata ci euh, beneen village waaye tamit lool yi dinañ leen ko tollantiwaatal ci suñu xibaaru guddi gi mbokk yi lii mooy li ruuse woon ci ay xibaar nees kii ñu def fàttali ci li ci gënoon a fees. ak Mouhamadou Moustapha bokkoon euh, li ci gënoon euh, fees ci xibaar yi ñu leen ko doon euh, faram-fàcceel sëriñ Cheikh Mbacke moom sëriñ Ismaïla Mbacke di xalifa mamoor Mor Diarra Mbacke borom saam ma nga doon gana ji waa waa kër sëriñ Abdou Awa Niang ga nekk foofee ca Afe lu ngeen njaboot gi kaddu yi ñu cee yëkkati incha allahu rabbi dinañu ñëwaat ci kaddu yi ko ko la ko mooy sëriñ Makhtar Mbacke ma doon wax ci troupe xalifa mamoor Mor Diarra Mbacke borom saam ci biir xibaar yi ba tey ma Samba Mbàkke di màggalug Daaru Karim démb lañ ko doon tëj ci ab cérémonie officielle bu ña ngi ko doon amal foofee ca Daaru Karim ka ca teewaloon nag nguurug Sénégal di ministre Gallo Ba teewlu ngeen ko ci xibaar yi waaye tamit ka doon wax ca turu njabootu ko Serigne Massamba di Serigne Cheikh Mbàkke moom Serigne Mouhamadana teewlu ngeen ko ci xibaar yi mbokk lii tamit wax nañ ci lu jëm ci wàllu développement dem foofee ca Touba HLM wax ci kuréel gii di Kër Yaa xibaar yi wax nañ ci wàllu politique dem foofee cee njaareem ki fi nekkoon ni jëwriñ di euh, ministre euh, Dame Diop ma nga doon amalum ndajeek ñenn ci ay militant ci teewaayu ki la di euh, jëwriñ ji ñu dénk wàllu commerce moom sax potoxlu na ca ngir leerlu liggéey yooyu ñuy amal ca marché Ndoumbé Diop fa mu tollu teewlu ngeen ko ci xibaar yi mbokk yi lii teg nañ ci niñ koy faral di defee talaata bu jot muy ganuk bis bi moom ngeen doon teewlu sànq muy àllaaji Thierno Wade mi chef de village su dëkk boobee ci ndàngal di ndàngal ma li lu jëm ci wàllu revue de presse bi waxtu wee ñu ko mayul fii la ñuy yem ak yéen ci xibaar yi Cheikh Bey mooy ki newoon ci machine bi Mamadou Moustapha Ndiaye mooy ki leen ko doon jottali rédaction bu rajo UCAB di leen jox dig daje incha allahu rabi ci xibaaru guddi gi ngeen fasciné ci ànd ak Pape Saer Mbaye yàlla muy borom jàmm te ku mu jàmmal nga am jàmm yàlla ñu defal jàmm sutura ak teranga barke borom dëkk bi ñu doon àddoo ngeen di teewlu jërë ngeen jëf